tey nag am na gëstu bu ñu bëgg a def ci Cheikh Ibra xëy na sax ki ñuy ñëw ci kanam dana ci mën a wax lu bari mais faaw nga ubbi ko ci diggante Maam Cheikh Ibra ak Ndar. waaw jërëjëf sëñ Mor ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi dellu yeesal suñu pas-pas jëm ci sëñ Sidi Mokhtar Mbacke xalifa sëriñ Touba ñu ñaan suñu borom bi gën ko fee yàggal gën ko may wër di ñaan googu tam mi ngi jëm sëñ Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall laaj nga a laaj Cheikh Ibra sëñ bu mag bi moo ko yebal ndar Cheikh Rafal tëbul tëb rek ñëw ndar ci ndigalu sëñ bu mag bi la fi ñëwee ñëw gi buñ koy xayma day nekk juróom-ñaari at laata ñu def projet bi kon ci baatin lu bët nëbbu am na loo xam ne sëñ bi nasoon na ko ñoom ñaari nasoon te woon nañ ko Cheikh ñëw fii ci dëkk bi autochtone yi maanaam ñi fi bokk ci dëkk bi mu jaxasoog ñoom mag ñooñu ñuy wax ñoo amoon Ndiaye maa béy Tafsir Umar Samb Malamine Seck ak ñeneen Ndiaye saat Cheikh Ibra jaxasoog ñoom bés bu nekk bu ñu waxee aaya mu indi ikam teg am lu mu leen di wax loo xam ne bu ñu ko gëstoo si téere bu mag bi dañuy gis ni Cheikh mii kat am na lu ku ko waajal te suy wax ak ñoom balaa wax ji daanu mi leen ay bu ngeen xamoon sama sëriñ bi yàlla suñu borom bi dogal nag projet ba am du sax projet ndax projet boo xam ne nit ki amul avocat injustice la Serigne Touba a su défier l' autorité coloniale fii ci biir palais bi ñu taxaw weddi leen wax leen ne li di wax dara amu ci kon fierté Sénégal ak indépendance Sénégal Serigne Touba moo ko joxe su loon beneen réew Serigne Touba feeñoon ci beneen pays fii ci Afrique wala ci monde bi bés bii ñuy wax le 5 septembre kenn du ko liggéey dañ koy feet ñëpp bokk Sénégal war na ñëw xawal surtout ñu ñuy diriger war nañu xool bu baax kan mooy Serigne Touba bu ñuy seetam tam référence di ko gëstu di xool référence bu wér Cheikh Rafal mat na référence koo xam ne nekkoon na fii am proximité ak nasaraan bi mais yàqul dara ci digganteem ak Serigne Touba mu dugg dans l'économie locale nan la ci duggee dafa installer des comptoirs commerciaux un peu partout sur la voie ferrée capter des fonds yooyu mu koy delloo sëriñ bi addiya donc Cheikh Ibra moo préparé yoonu murit installé li ci am yëpp compartiment yi ci am yëpp Cheikh Ibra Fall moo ko indi nekk na fii tubaab bi dem ba xam ni c'était un homme très subtil et raffiné tubaab bi ko wax ñun waxuñu ko tubaab bi wax nañu fii ni waa ji ku xarañ la ku xay la donc réew mi war nañoo wut suñuy wut référence feneen di wax Engels ak yeneen yooyu duñu référence référence bi mooy li nga xam ne day nekk dans une dimension continue et multidimensionnelle mooy Cheikh Ibrahima Fall. wax ay tool waaw maanaam bi bi ka nasaraan bi xoolee moom mouvement de foule bu xaw a doy waar. population yi commencé di massifier wu jógee Kayor Bawol ak fu nekk di ñëw ci dëkk bi guddi gi ñuy sikkar mu nekk un sikkar un sikkar nouveau d'un type nouveau boo xam ne fii mosuñu ko dégg baa Fall yi di fi def. tubaab bi dafa kat man li ma war a def léegi mooy ma fexe nu mu ko génn repousser mu génn dëkk bi mu may tool sa bopp jaara mi ni kuy liggéeyal doomu maam jaara ñu may la tool sa jaara yow sa jaan wàcce na kon damay dem foofu la doon def maraîchage nag ci foofu ci ci boppu jaara mooy gànjool Cheikh Ibra Fall dafa xayoon ku taxawoon la ku c'était un nationaliste c'était pas un patriote un nationaliste kon réew di Sénégal war nañ ko dool dayoom on doit réécrire l'histoire de ce pays On ne peut pas reléguer ce Fall au second plan. Non, il n'est pas au second plan. C'est quelqu'un qui est devant et très pour ce pays-là. Cheikh bi tey suñu kàddu dañu koy jëmale njëkk nga dikkal ñu ci lan moo waral tey li dajale taalibe yi euh, fii ci Ndar. Euh, danuy sant yàlla bu baax a baax di wax di leen ñaanal yéen waa télévision ndaxte wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na ni ngeen àndee ak kuréel gi rafet na lool. daaw yaakaar naa ne defoon nan lu mel nii kon nag bu fekkee ne ren ci quinze édition bi amaat nan occasion pour defaat lu mel nii dañ leen di delloo njukkal bu baax a baax euh, waaw wax nan ko xam nga bundee xool 5 septembre ñu ne góoru yàlla gu mag googu gu am dayo bi mu dayoo ku am <laughs> dayo bi mu dayoo am na jëf ju mu jëf fii te boobaak léegi téeméeri at yi weesu na bu yàgg ñu koy selebre xëy na sax dina am ñoo xam ne am nañ beneen gis-gis am nañ beneen jàngit loolu nag day mel ni tam dafa dëppoo ak jamono ndax gis nañ fi mu ne téere bu tedd bi am na sax ñoo xam ne noo ngi koy jànge neneen ñooñu nag mënunoo téye xëy na ñaare ràkka yi muy continuer di dem waaye li may wax toujours waa kuréel bi mooy léeg-léegi mën nañ leen a bàyyi xel ba jam-jam yi mbaa lépp loo xam ne dañ koy jëfale ci euh, mën nañ koo defar daal ba mu gën a ñoŋ nu leen ci ñu leen ci yor li xewoon fii moom moo di rek génn góoru yàlla goo xam ne moom xam na yàlla sunu borom xamal na ko mission boo xam ne da koo war a doxe pour suqali umma islamique pour ràmmu jaam yi loolu muy mission boo xam ne moom gis na ko xam na ko xam na jaar-jaar yëpp laataa loolu muy am loola nag nasaraan bi moom yaakaar ne. ci pouvoir bi mu am d'impérialisme et de colonialisme mën na ko woo gundu ko mbaa fexe ba contrecarrer li nga xam ne moom la ko sun borom nam jox ko teg ko ci yoonu mission booba nasaraan bi kon moom ci bëtam bu sew ci manque de vision mu yaakaar ne loola ay xat-xat la mbaa ay tolof-tolof la yoo xam ne war na ko mën a defal seen bi ma jukki ci benn rek démb sëriñ Ndakaaru nee na ba magul lébu yi bañee sëñ bi génn dafa am lu def ci guddi gi suul ko ndakaaru pour sëñ bi bañ a génn ñu xëy fajar sëñ bi woo leen ne leen lii ngeen def nii suli leen ko ndax man damay dem liggéey li suñu borom xam nga kooku kon moom xamoon na bu baax a baax fi mu jëm ñime na fa waaye nag am na nu ko yàlla jaaree te moom mu nangu dogal booba bi mu ñëwee biro baa ngi nii nu jàkkaar lool bin ko wooyee dafa sànni der bi kàbbar julli ñaari rakka soog a wax lu muy wax ak nasaraan bi nasaraan bi tam def benn parodie de justice loo xam ne amul avocat amul euh, contradiction amul dara daal di taxañ mbir mi ne ko dañ lay génne réew mi ñaari rakka yooya moom la ak kuréel ay góor yàlla ay doomu ndar ci ay xat-xat nag ak i jafe-jafe fexe ba di ko def chaque année mu metti woon lool nag commencement ba. fukki nit ak ñeent mbaa fukki fan ak juróom-ñaar ñoo daan julli fii taw fekk na leen fii ay GMI dàq na leen fi ne du fi amee waaye boobaak léegi mbir mi mi ngi am te incha allah day gën a gudd rek ah, du ma jeexal nag te waxuma ne sëñ bi ñoom gim ñëw ndar ay magi ndar yu baax say lamin nuyu na leen te ñooñu seen i waajur ñoo ngi fi ba léegi même buñ bokkul tam tarixa ñoo ngi amoon gis-gis ak témoignage boo xam ne dañ ko doon jëmale ci góor gu tedd waaye itam dafay amoon génn góor goo xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne ñëwoon na moom itam comme nin ko waxee fexe ba économie locale nga xam ne tey maa ngi jàng ay téere yoo xam ne dan naan danoo bëgg économie rurale loolu itam sëñ bi jiitu woon ci ñu bari sëñ bi jiitu woon ci ñu bari fexe ba ñi mën a ñawi yi pajaas di ko ñaw ñenn ñi waroon a wuude di ko def tëgg yi di defar fee yooyu yëpp bu nu xëyee xayma économie boobu dajale ko la ca xew lépp xam ngeen ko boros ko def ko ci saaku daa loola tam xam ngeen ne am na taxawaay bu mag a mag bu ci xew. doon gëstu tamit ci maam Cheikh Ibrahima Fall digganteem ak Ndar waaye digganteem ak Serigne Touba loo ñu ci mën a baaxee. waaw loolu day xam nga dinañ lot nag li ci wax ndax euh, génn góor euh, nun amuñu maxama euh, di ci wax waaye nag ci zaayir am na luñ ciy for man koo wesaare. mbaa séddoo ko ak ñi mel ni nun nga xam ne xëy na ñoo bokk dégg-dégg waaye nag eh, yeneen yi moom xëy na sañunu ko mbaa buñ ko sañee itam amuñu ndigalam ah, maam Cheikh Ibrahima Fall daal génn góor la woon goo xam ne moom lépp mooma lépp mooma nag am na ñu ko jële woon ca commencement ba ba muy metti waaye ca jeexit ba tam yaakaar naa ne xam na liñ ci wax lépp lépp mooma ah, génn góor googu nag féete woo ndar waa ndarit féete woo ko Euh, kin ma duppee muy génn góor sëñ ablaay Fall Ndar di xalif général des Baye Fall bi gën a yàgg ci xalifa gi fii la gën a àdduna maam Cheikh Ibrahima Fall amoon ay makkaan yu bari fii ci Ndar ci gàttal waaye makkaan mun ko fi jox da ko daan def titre foncier place de l'indépendance bi ñu daan wax mu jàkkaarloog marché sor këyit ga photocopie titre foncier ba am naa ak yeneen ak yeneen. école bii nu duppee tey Cheikh Touré ca Guet Ndar foofa tam ci benn makkaanam la woon li wër Ndar nga xam ne daana fa maanaam béy béyum noor maanaam jëm côté Gandiol muy jaara foofa tam daana fa yëngu ay yëngu yu am solo waaye nag maam Cheikh Ibrahima Fall ci man li ma ci mën a fornir rek mooy li ñuy tuddee tey économie rurale moom dafa amoon vision boobu ndax dafa ñëwoon fexe ba ñi nga xam ne danoo toogoon. Euh, xëy na euh, tarbiyu rek indi leen fii mu organiser leen ñi nga xam ne danoo mën a ñëw ay pajaas ñëw ay pajaas ñi nga xam ne danoo mën a tëgg ñu tëgg ñi nga xam ne danoo mën a yatt ñu yatt ñoom ñëpp journée bu nekk nu dajale lanu xam ne ñoo ko ñaqal seen bopp andi ko muy alal ju takku ca jamono yooya la ca des lépp xëy na euh, dégg nañ ko kon nag góor gu mag googu jàngaleet bi mu jàngalee dafa war a mën a nekk actuellement référence ci biir addina bi waaye ci biir Sénégal waaye nag ci biir umma islamique Cheikh nekkoon ku yiw nekkoon ku sell nekkoon ku xay nekkoon tam un fin diplomate nasaraan yi nga xam ne ñoo ŋànkoon alal yi mbaa noo ŋànkoon pouvoir bi fii ci Saint-Louis mu amoon ak ñoom am lante bu rafet a rafet rafet kon nag ñi nga xam ne bokkuloon ak moom diine mu am ak ñoom amalante bu rafet a rafet a rafet kon kooku xam nga tracé na ay valeurs yoo xam ne nun ñoo ngi koy jéem a làmbaatu fekk nun am nañ koo xam ne xaalal nañu yoon woowu muy maam Cheikh Ibrahima Fall di génn góor kon nag man daal su ma doon lancé benn appel dama naan suñu autorité yi jeunesse bi ak itam sang yi nga xam ne am nañ sañ-sañ boobu nu génnewaat gëstu yi nga xam ne war nañ koo mën a def ci maam Cheikh Ibrahima wesaare ko ba nga xam ne sénégalais dina mën a réconcilier avec lui-même en partant des valeurs yi nga xam ne moom la maam Cheikh Ibrahima Fall doon véhiculer. léegi fi ñu lay tëjalee mooy euh, njabootu Cheikh Ibra gi nga xam ne ñoom itam am nañ ay jeexit fii ci Ndar. waa am na ci ñu bëree bëree bëri xam nga su ma tuddee maam euh, sëñ Abdoulaye Ndar rek kooku déjà man na daal di mandargaal lépp li ñuy fàtte rek mooy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci boppam deretam am na ñoo xam ne ñoo nga tëdd fee ca ceem loolu tam ñoo ngi ci am programme bu mag boo xam ne tam yu mel noonu su amee di loo xam ne mën naa indi lu baree baree baree bari ci ndar gi dan ko war a gëstu war koo ñoŋal euh, sëñ Ablaye Fall Ndar nag gane na àddina fii def na fi euh, euh, son devoir militaire dem na ca guerre ba ñëwaat na kooku jàngale na. wane na ko <laughs> wax na fi ñu war a teg tànk ci doomu Sénégal yëpp.